salaamaaleykum bu ñëwaat di defaat vidéo bi rek mais damay euh, ñaan rek di dellu di ñaan di dellu di ñaanaat gaa yi ngir yàlla jëmmi Seydina Mouhamed bàyyi leen ma ma toog gérer sama ménage ngir yàlla bàyyi leen ma ma toog gérer sama ménage ngir leen ma ma toog gérer sama ménage ngir yàlla ndax nag yëf yaa ngi bëgg a ëpp message yaa ngi may commencé sonal bàyyi leen ma ma gérer sama ménage te yàlla rek tax il faut arrêter s'il vous plaît leen ma ma toog dund sama dund sëy sama sëy te yàlla rek tax awma oto sant naa yàlla awma appartement bu baax comme samay morom sant naa yàlla mais dama koy ñaan rek ngeen bàyyi ma ma sëy te yàlla rek tax yow mi may woo nag chaque jour nga woo ma téléphone di ma menacer di yàq sama xel dama lay ñaan rek nga arrêté nga arrêté dama ko ñaan rek waaw ah, saaga moom yàkkamtee xeex la mais damay ñaan rek ngeen bàyyi ma ma gérer sama ménage te yàlla rek tax juróom benn at maa ngi sama sëy te aw ma ci benn problème man alalu àdduna yóbbuwuma ay milliards yóbbuwuma ay millions yóbbuwuma bàyyi la ma ma enjoy sama life nekk sama jàmm yóbbuwuma bàyyi la ma ma enjoy sama life nekk sama jàmm taalibi sëriñ Touba laa te yaay Fall gaynde laa fukk yóbbuwuma barki Cheikhul Khadim damay ñaan rek ngir yàlla jërëjëf